E xam nga dañu tolloon ci moment boo xamante ni nit ku nekk da nga war a tànn candidat te candidat yi no élection présidentielle nit ki moo koy tànnal boppam mooy kii la doy man dama jàpp ni dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ak Sénégal fi mu toll Sénégal ñoo ne ndaw lañu bëgg ci bopp réew mi Sénégal moo ne lu bees tàq la ñu bëgg ci bopp réew mi ñun ñu bokk Benno Bokk Yaakaar gis ni am na benn ndaw bu samp ndëndëm bu tudd Mame Boye Diao mu nekk projet boo xamante ne nag bañ koy xalaat du tey parce que ba ñu jortee ni président de la République du samp ndëndëm rek ñun dañu jàppoon ni dañu war a ñëw taxaw xalaat suñu projet teg ko pour dem seeti Sénégalais yi ma préciser ni Mame Boye Diao c'est pas parce que il n'a pas été moo tax mu samp ndëndëm xamoon na ni duñ ko tànn moom Mame Boye Diao xamoon na ni duñ ko tànn mais day toog déglu kilifaam benn kilifa bu mu mës a am ci politique muy le président de la ba mu ko dégloo ba président tànnee ba pare moom mu jàpp ni dafa war a nag dem briguer suffrage sénégalais yi briguer suffrage sénégalais yi mooy wax ak askanu Sénégal wax ak askanu Sénégal jaay leen projet projet bi mu leen di jaay mooy projet Sénégal nouveau mais teg ko ci li baax li président de la République def andi yu bees teg ko ci le développement humanitaire un développement doit passer doit être sur les hommes mooy la vision da ngaa déggul li nga wax ma ne la c'est un projet bañ koy togg du tey balaa ñuy tànn président Mame Boye Diao mais discipline mais discipline de parti ah discipline de parti moo tax ak coalition moo taxoon ñu toog ci biir mais terewul ñu ngi doon dox suñuy dox parce que vous avez vu les couleurs sont sorties un projet livre est sorti parce que du lu ñu liggéey ñaari fan ñetti fan c'est quelque chose qui a été travaillé et préparé parce que xamoon nañ ni président du ñu tànn mais xamoon nañ ni jeunes Sénégal dinañu soxla parce que aujourd'hui on ne peut pas avoir des jeunes qui sont en face du pouvoir des jeunes comme des gens qui sont de l'opposition et que nous coalition Benno Bokk Yaakaar on se permet d'avoir un candidat qui est allé à la Nous sommes des jeunes et nous avons des ambitions. Et par rapport à cette situation, nous avons porté Mamboy Diawo. Parce que c'est une, c'est une chance pour le Sénégal. Il est compétent. C'est un ouvrier, ma chère. Il n'a jamais géré un ministère pour pouvoir mettre en œuvre sa vision et son projet. Il a toujours été un ouvrier parce qu'il a été directeur général. il a été, il a été directeur général, a été directeur national, il a été directeur général. Aujourd'hui, il a décliné sa vision aujourd'hui. Donc c'est pour cela, nous, en tant que nous, nous savons que nous sommes accompagner. Nous sommes en train de prévenir, nous artu tout. Nous sommes tout. Fini xam nañ leen xam nañ ñu ñu ngi leen di artu nag nañu bàyyi débat de personne yi parce que nag nous sommes des hommes d'État Nous n'allons pas faire dire des choses. Mais nous pas débat de personnes. Parlons du Sénégal. Parlons du projet. Parce que le Sénégal qui vient, c'est le Sénégal de cette jeunesse. Le Sénégal qui vient, c'est le Sénégal du développement axé sur l'humanité. Le Sénégal qui vient, le Sénégal est, c'est le Sénégal de l'espoir, porté par un jeune et entouré de jeunes. C'est ça qui est important. Parce qu'une gérontocratie, nous avons besoin. Mais Sénégal gii pour moom la jëm kanam dañ koy teg ci ay loxo gone ay gone yoo xamante ni am nañ xam-xam bi am nañ taxawaay bi am nañ fulla bi ak fayeta bi loxo yi set na te loolu ci am solo ñi ko wër du ci kenn koo xamante ni am na lu la mën a taxal am na lu ñu soxna soxna si nee naa la soxna la nee naa la ba ñuy waaj du tey ba ñu jógee du tey yéen rek yekk bi ngeen gis mais togg bi togg nañ ko on a déjà fait le maillage national li ñu war a def def nañ ko ba pare on a déjà l'équipe on a déjà l'appareil autour du président Mame jaw Diao mais attention attention attention moi personnellement les gens qui l'entourent représentent quelque chose pourquoi vous êtes venu pour moi parce que je représente quelque chose su ma tekkiwul leen dara nag doo ñëw ci man te man nag man mi taxaw fii waa Benno Bokk Yaakaar xam naa ni dinañ jaaxle parce que je leur faisais face maa leen doon taxawal maa leen doon xeexal maa leen doon defal lu ne suñu làqatoo dugg ci suuf wala lii man maa doon taxaw tey maa taxaw di jàkkaarloog ñoom. fi mu ne nii fi mu ne nii naa la bañ non c'est pas c'est pas tout aujourd'hui le projet je t'ai dit que le projet ne date pas d'aujourd'hui le date mbir mi. dafa date lu yàgg mais suñ nekkee ci biir parti nag dañuy yaru dégglu kilifa parce que nag Macky Sall daf ñoo ji teranga defal ñu lu baax yéene ñu tey suñu jàngee lu bari ci moom paaka nag kenn du ko jiitu di mbaram ba ñu xamee xamoon nañ ni ñu tànn puisque xamoon nañ ni duñu tànn ñu toog déglu ko ba mu tànnee ñu ne ko bàyyi booy mu ne ñu naam ñu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu andi lu bees teg ko sa loxo mooy dem wax ak jeunesse su Sénégal dem wax ak femme Sénégal dem wax ak population sénégalaise teg ko ci loxo président Macky Sall te dinañ leen xamal ne leen li ñuy waaj xam nañ ko li ñu bëgg a def xam nañ ko le moment venu on en parlera. Sénégal nee na ndaw la ñu bëgg ci bopp bi Sénégal nee na jeunesse la ñu bëgg ci bopp bi Sénégal nee na rupture la ñu bëgg. dangeen ngeen di ci mber mi di dégg jeunesse bi ngeen di ci mbedd mi di bi non la rupture c'est Mame Boye Diao la jeunesse c'est Mame Boye Diao l'innovation c'est Mame Boye Diao la le renouveau c'est Mame Boye Diao entouré de jeunes engagé dynamiques pour un développement basé sur l'humain parce que nag lu dëkk bi développé développé tey sénégalais yëguñu ko billaahi baaxul parce que nag gis nga tey gis nga tey ñu ne diw mooy candidat Benno Bokk Yaakaar waaw nangu bañuma mooy candidat Benno Bokk Yaakaar dem ko koy nangu mais candidat bi nga xam ni depuis plus un an ñu teg la ci boppu premier ministre Sénégal àgg ci kilo soble 2000 soo nekkee président de la République kilo soble 5000 lay jar président boo candidat boo xamante ni ba la defee premier ministre jeunes di daw di génn Sénégal di dee ci géej gi suñ la defee président de la République sénégalais yëpp ay génn daw dugg ci biir géej gi sénégalais yi faatu donc pour wax sénégalais rek nañu bàyyi xel. ci lii ab màgget ak ndaw bokkul Mamboy moom la jeunesse bi àndal moom la ndawu alliance pour la république bëgg moom la ndawu Sénégal bëgg parce que moo andi lu bees tàkk ci boppu Sénégal je vous remercie. yàgg na liggéey yàgg na gañe goo xam ku ne xam na taxawaay bi am ndaw ñi ku ne xam na taxawaay bi mu am ci réew mi donc kon su defee lu mel nii dañ koy rafetlu donc ñu waxtaan ci mu leeral ñun fu ñu jëm. ñu ne ñu wax ko ni ñu ko bëggee pour koo xamante ni yaa ngi bëgg réew mi ci taxawaay bi nga waram ci askan wi ak ci àll bi ak ci ndaw yi seen liggéey loolu mu tego ñu lu leer nañ loo xamante ni doy nañu moo tax ñu fas yéene ànd tey jàppale ko pour ñu jëli ndam li. waaw mobilisation bi ay sympathisants la sympathisants yoo xam te ni yu Mame Boye Diao yu jóge fu nekk ñëw parce que yàkkamtoon nañ tey ji pour mu woote pour nit ñi man a wuyu si ko fay ko borom mais nekkul loo xam ne tey jii dañoo transporter ñi ñëw lañu mel noonu naam jàppale ne ñoom ñëpp ñëw mais tey boo xoolee waa kër ak ñoo xamante ni duñu bëgg seen réew ama ñoo ñëw lañu fi te xamuñu Mame Boye dañu doon xaar lii ci